dañu war a bàyyi seen politique yi rek ñi dicté ñoom li ñu bëgg pour que Sénégal dox moi je ne pense pas à ça chacun a le devoir encore une fois le devoir et la responsabilité d'agir pour un Sénégal de paix un Sénégal intègre un Sénégal motivé que pour le travail pour l'intérêt commun et puis dinaa wax dara tamit il faut pas qu'on dise que c'est le président de la République qui est responsable de tous les maux du Sénégal c'est impossible Je ne peux pas comprendre qu'un directeur de société nommé par le président de la République pour prendre en charge des populations vulnérables se permet pour payer un créancier ou bien un fournisseur d'avoir une commission dans ce qu'il donne au fournisseur. Où est la responsabilité du président de la République dans ça C'est la conscience citoyenne qu'il faut cultiver. na ku nekk def lu si yow sa diggante ak sa yàlla ak yàlla nga def lu wax si yow pour ta communauté pour ta famille pour la nation sénégalaise ñun ñëpp ku nekk boo jógee Macky Sall n'est pas responsable son excellence Macky Sall responsable n'est pas responsable ne n'est pas celui qui est à la destinée de mon ma vie je me dois en tant que citoyenne de savoir qui c'est quoi mon rôle mon devoir d'abord avant de revendiquer nos devoirs nos droits suñu droit suñu droit nañu xam d'abord lan mooy suñu devoir man loolu moo tax ma jóg ngir Sénégal ce n'est pas politique je suis politique c'est pour la conscience citoyenne réveiller la conscience citoyenne ku nekk xam lan mooy sa wareef pour que société bi mun a dox yonente sa yonente yàlla sallallahu alayhi wa sallam boo gisee il a réussi la mission prophétique c'est parce qu'il a été entouré de bons sahaba yonent yàlla Jésus Christ s'il a reçu la mission prophétique c'est parce qu'il a été entouré de bons apôtres le président de la République si vraiment il doit réussir la mission il faut qu'il s'entoure aussi de bons apôtres de bons sahaba et de bons compagnons et aussi d'un peuple qui est au fait de ce qui se passe dans son pays et qui prend en charge aussi sa responsabilité par rapport à la marche de la nation man daal loolu laa gëm moo tax ma jóg pour jóg Sénégal moo di challenger candidat yi danañu dugg ci seeni programme danañu organiser ay conférence fépp fu ñuy ku ci nekk ci ñun di dem ci média yi danañu xuus ci programme yi bu baax a baax suñu demee ba conseil constitutionnel ne ñii ñooy candidat officiel yi Sénégal retenir ku ci nekk ci ñoom danañ fëgg sa bunt jéem a waxtaan ak yow mais processus boobu suñ ko defee ba mu jeex danañu waxtaan ci suñ biir seet kan moo gën a dal suñu xel tooguñu di ne kii moo ma neex kii moom ma neex dañu ne danañu fëgg fu ne wax ak ñu ne ñi bëgg a wax ak ñun wax ak ñoom challenge leen ba gis ci sénégalais yi nga xam ni conseil constitutionnel ñii ne ñii ñooy candidat suñ ci gisee ki dal suñu xel liñ déggoo ci seen biir mooy di danañu futteeku jàppale ko leer naam leerul leer na de li ma wax leer na de dañu ne fileeg yaa ngi may dégg fileeg conseil constitutionnel di génne tur yi dañuy waxtaan ak ñëpp su conseil constitutionnel ne ñii ñooy candidat ku ci nekk danañ fëgg sa buntu nee la yow lan nga yor lan nga wax ñu débat ak yow rajo yi duñ la may dara teg sa programme xuloo xeex danañ ko def suñ demee nag ba loolu pare ñun danañu lël danañ def suñu lël waxtaan ci suñu biir ne ah gis nañ diw gis nañ diw dégg nañ diw dégg nañ diw lan lan ngeen jàpp suñu ci gisee ne kii moo gën a dal ci suñu xel ci Sénégal le meilleur Sénégal possible ñun la wax suñu gisee kii ñu ki nga xam ne kii yaakaar nañu ci moom le meilleur Sénégal possible bu boobaa ñun danañ futteeku ànd ak moom jàppale ko ba mu toog kii nee na nag su toogee indi déception foo leen jëm voilà question bu xóot la laajte li wérte wóor moo di on va se donner les moyens ba dooñu nju njaaj loolu xam nañ ñu koy defee mais su fekkente ne nanga ñoo ñu njaaj am nañu maandu gu dey ni danañu ne Sénégalais yi kañ tànnoon dana juum waaw li ñu narul def mooy li politiciens yi di def ànduma ak yow mais comme sama intérêt yow maa ngi ma ne pat li xew li xew ci réew mi ñu ñëpp xam nañ ko loolu mooy suñu engagement moral xaw ma ndax am euh, am na ko ci bëgg a yokk dara abu yore degré de paupérisation bu Sénégal dafa jéggi dayoo tey waaw dégg naa keroog benn journaliste naan Macky Sall a réussi le triste exploit d'avoir transformé tous les Sénégalais en mendiants waaw waaw ku yelwaanul dégg mënoo motal sa dara ñëppay laaj man de damay laajaal waaw parce que man sàccu waaw léeg-léeg ma ne sama ndijaay jox ma dara est-ce que tu as parce que tey dafa metti mais c'est la vérité waaw économie boo xam ne euh, loolu ngay wax mënuñu am autosuffisance alimentaire mënuñu am dara waaw da ngay seet ne tout est importé loolu ngay wax ci transport su fekkoon bëgg na résoudre le problème du transport du Sénégal mille milliards ci terre mille milliards sur cinq kilomètres su ko defoon dégg nga dans le transport d'une manière générale ah tout le Sénégal tramway rek laa wax avec mille milliards on a xanaa plus de cent tramway yi dégg nga yoo xam ne fu nekk la ñuy daw Sénégal xam nañ ko xam nañ li muy jàpp terre bi ñu ñu présenté mille milliards ah train bi euh, ça coûte environ 4 millions d'euros 4 millions d'euros mooy lan 2 milliards 400 millions c'est extraordinaire ah yii moo indil problème sénégalais c'est-à-dire que depuis les indépendances on élit des castes ay clans bu ñëwee taluñu kenn xam nga lu ñu tal le protocole la ñuy lekk la ñuy naan ñoom dégg nga regarde le budget de la présidence regarde leneen ak leneen ak leneen li lay wan ne mal gouvernance acte yi koy wane dafa ëpp te yenn yu bëri dégg nga j'ai l'habitude de le dire diriger dëkk ak diriger doon chef de famille sama benn professeur tubaab loolu la ma doon jàngal ne ma gérer une maison et gérer l'économie d'un état daanaka amul différence waaw xool li ñu imposer ci ay ci ay ci ay euh, euh, euh, investissement de prestige dégg nga toppal budget boo ko toppoon pendant cinq minutes budget bi jeex xaalis bi ñu joxoon Macky Sall yëpp terre mille doolu dollil ma ci six cent milliards Ila Touba muy mille six cent milliards dolli ma ci 350 milliards BRT muy ñaata 1900 milliards déjà am nañu 2000 milliards dollil ma ci Diamniadio la ville de Diamniadio 4000 mi 4 4 milliards de euh, d'euros dégg nga muy beneen 2 milliards 2000 euh, milliards boo ci dolli muy 6000 milliards soo ko toppee nii pendant 5 minutes xaalis bi jeex mais ça c'est quel genre d'économie incompétence bu toll noonu ah cet homme-là ne devait pas prétendre à pouvoir diriger un État loolu foo la defoon président nga am bilan bu gën bilan am yoon ak juróom ah ma daaneel fii nga am bilan yooyu mooy suñu problème dégg nga ku toog ci biir salon naan est-ce que bu ñu leen defalee fii stade bu 200 milliards bu neex dégg nga est-ce que du waaye fii du ma fi def benn immeuble fii du ma fi def nangam loolu mooy économie ah soo paree nag teg sa liste nag di ratatati naan voilà moom bilan matériel. ku ko dégg ci àddina bi yuuxu ala ko ton peuple euh, euh, meurt de faim dégg nga amuñu dara journaliste yi seen c'est quelle profession euh, journalisme aujourd'hui tellement précarisé ah ba ci biir fonction journaliste yi sax boo seetee ci fi ngeen di liggéeye ak yëpp gis nga le désordre est total y a que le patron de presse qui vit dégg nga journaliste yi dara mais je sais les journalistes ont du mal à vivre am lu ñu lekk ak lu ñu naan dégg nga on eh, ñu leen di jox ay fonds ay dotations qui n'arriveront jamais vers les journalistes un journaliste boo xam ne da ngay dem ba siiw nekk ci njaganjaay yeeg clando yi même pour des raisons de sécurité ah ñu naan mais kuréel diw moom la ñuy gis télé et cetera dégg désordre boobu nag ñun moom la ñu bëgg mu jóge fi ça c'est des hommes extrêmement intègres dégg yoo xam ne man naw leen moo tax ma rejoindre leen waaw ndax bari na fu ñu ma woo wallaay woo nañ ma ci seen affaire yi yàgg nañ maa woo ci bu fekkoon loolu rek la ba ma doonee ministre dafay teg bu fekkoon loolu rek la lu ba tey ñi nga xam ne ñooy dem mais nag on a préféré autre chose on a préféré rester au côté de noo populations dégg nga reyante ak suñuy population lii colonel di wax dekkalaat dégg nga beneen idéal ci bopp sénégal yi parce que ñun ñëpp on mourant dégg nga ñun ñëpp dañuy dem dégg nga indiwaat beneen Sénégal ah c'est ça qu'on te nag am nañu richesse am wax naa ko fi sànq junju naa ko am nañu alalam am nañu yëppam ci lool lañ jëm avec le gaz la tu vas voir le produit intérieur brut du Sénégal dégg nga dem ay cinquante mille milliards dans les quatre ans à venir fi ne quinze mille milliards lañ toll ñëpp a ko xam àddina bi yëpp quand le président de l'Allemagne le premier ministre Olaf Scholz di daagu Dakar pour le gaz du Dakar ñoo ñu caaxaan ñu ko jiw ah mais le danger tu sais quel est, le danger qui nous guette ñu ciy woo Sénégal yëpp billahi wallahi taalahi si on ne fait pas attention ah ba ñu toogaat ñoom continuer ah da ngeen dégg ñu naan produit intérieur brut du Sénégal cent euh, cent mille milliards de francs CFA la par an Sénégal yi gën a torox dégg di gën a dee di gën a ñàkk c'est ça nag loolu la ñu bëgg mu bañ a am dégg que dans les cinq ans ans à venir et ça c'est les grands économistes européens qui l'ont dit dans dix ans le Sénégal avec sa petite population et ses ressources naturelles aura un produit par tête d'habitant équivalent au produit par tête d'habitant des pays dégg nga les plus développés au monde lii moom mooy mooy wax ci